monsieur le ministre monsieur li ma lay njëkk a wax mooy massa massa massa massa lu tax ma lay wax massa parce que xam naa ne charge bi diis na liggéey bi metti na moo tax tamit du ma guddal parce que xam naa ne moment bi ñu nekk nii ñu bari ñu ngi lay xaar pour déposer seeni parrainage xam naa ne tamit ci suba ba léegi yaa ngi nangu ay parrainage yenn saa nga nangu ko fii yenn saa nga dem jëli ko fereen ñëwaat fii donc monsieur le ministre xam naa ne sonn nga torop moo tax ma lay wax massa je ne vais pas nag ñi jël parole sànq wax nañu li ëppoon solo ci wax ji duma ci ñëwaat su ma amoon jot tamit dinaa lim ñëpp ñi nga xamante ni nekk nañu ci délégation bi bi ñuy ñëw nag monsieur ma wax la ko dañoo nëbbutu dañoo làqatu ndaxte suñ ko publier woon kon nit ñi duñu xaj fii mais dañu wax rek ne ku am jot ñëwal ñu ñëw moo tax du ma tudd ñëpp ñi nga xamante ni bokk nañu ci délégation bi parce que ku lim juum ku waaye nag am nañu suñu benn doyen boo xamante ni nag loo bañee lim lim lim lim il faut nag nga lim ko mooy le doyen Abdou Salam Gueye qui médiateur qui est un yàgg nag ci parti bi nekkoon un compagnon du président Macky Sall di ñu gunge moo tax maa ngi lay nuyu bu baax honorable Abdou Salam li ci des nag mooy tey dañuy ñëw fii pour jox la les parrainages de la ville de Rufisque la ñu organisé woon parce que ñun li ñu gëm mooy liggéey bi c'est pas au niveau des département c'est pas au niveau des régions c'est au niveau de la commune si chacun gagne dans sa commune on gagne les élections à l'échelle nationale moo tax L'approche doit être une approche communale. L'approche des parrainages doit se faire au niveau des communes. L'approche de la campagne électorale ne devra pas être des caravanes, ne devra pas être du folklore, ne devra pas être des gros meetings, mais ça devrait être une approche de proximité, approche décentralisée au niveau de chaque commune. Et si on gagne les communes, on gagne l'élection. parrainage yi sànq wax nañ ko c' est d' abord pour la ville de Rufisque où on s' est organisé bi ñu organisé au ville de Rufisque on a des amis politiques du département qui sont venus l'honorable Diagne Diop nekk fii moo tax ma lim ko ak tous les amis du département indi seeni parrainage ñu boole ko moo def la somme de soixante mille parrainages à peu près waaye nag ministre Aram Ndoye def ko wax te mu am solo Aram je te remercie d'avoir dit ça parrainage yi nag c'est pas le parrainage c'est pas le fait d'une personne c'est pas le fait de quelques responsables non c'est un travail collectif c'est un travail quasiment de plus de cinquante cinq mille parrains ñëpp ci jàpp ñëpp mobiliser wu su doon loolu du ñu atteindre les résultat qui nous étaient assignés ba dépasser sax résultat yooyu damay faral nag di wax ne L'unité en politique, c'est très bien. Être ensemble, c'est bien. Agir dans l'harmonie, c'est bien. ñun lébu yi dañuy wax wat gaal yëgoo ànd bi baax na waaye nag en politique ce très important mooy na ku nekk liggéey su ku nekk liggéey ba pare ñu additionné suñu additionné dinañu am de bons résultats monsieur le ministre cher coordinateur kenn rek laay cité parce qu'il est absent Tous les autres responsables sont là. Mais je vais citer l'absent, présent, parce que c'est un absent qui a beaucoup contribué à ce travail. C'est quelqu'un, Aram l'a dit aussi, qui nous a permis aujourd'hui de refaire l'unité dans la ville de Rufisque. ba nga xamante ni tey ñun ñëpp déggoo nañu ànd nañu benn say la ñu def au niveau de la ville de Rufisque mooy l'honorable député Souleymane Ndoye ñëpp lay waxal c'est un rassembleur il est humble il est ouvert d'esprit c'est un fédérateur tey nag nekk fii waaye yónnee na fi délégation bu am solo donc Souleymane Ndoye je lu rends hommage et je le remercie pour le travail politique qu'il est en train d'abattre à nos côtés dans la ville de Rufisque monsieur le ministre fi may jeexale rek mooy le sens du parrainage le parrainage le président Macky Sall a inventé le parrainage pour que les candidatures à la présidentielle soient des candidatures légitimes, portées par les citoyens, portées par les électeurs. Mais le parrainage du point de politique, c'est un instrument de mobilisation politique. tey parrainage moo tax li ñuy ñëw pour jox Diouf Sarr suñuy parrainage moo tax ñu am moment bi de mobilisation monsieur le ministre parenage bi mobilisation la mobilisation des communes de Rufisque mobilisation de la ville de Rufisque mobilisation des départements de Rufisque suñu sañoon nag dinañu jox ñëpp kàddu waaye mënuñu ko moo tax dafa am ñoo xamante ni c'est les acteurs ñoo travaillé à la base moo tax ma bëggoon leen citer mooy l'APR Benno Bokk Yaakaar la grande mouvance présidentielle mais nag ma bëgg ci ràññee ANCP de Alioune Mar le Parti socialiste l'AFP le PPC l'ARC de Badara Mama Yacine le Parti de la Réforme la LDMPT le PIT le nouveau parti RDR Yessal le mouvement de Mame Gor Diazaka le mouvement de l'ambassadrice Diouma Dieng Diakhaté le maire Mor Sarr Ba donc ñooñu ñëpp ñoo ñëw jàpp ci liggéey bi donc monsieur le ministre dama bëggoon au non de toute la ville de Rufisque au nom de tout le département de Rufisque nous adresser nos sincères remerciements sonn nga liggéey bi metti na waaye nag président Macky Sall dafa xam ne attan nga ko moo tax mu dénk la ko loolu laa bëggoon yëkkati comme kàddu di wax nag ne les responsables de Rufisque dafa am ñoo xamante ni nag dañu jàpp nag ci liggéey bi jàpp nañ ci madame la madame la ministre à raison comme tous les parrains waaye ñoom tamit dugal nañ ci seen loxo nag bu am solo te nag bëggoon naa leen citer notre frère Achille Achille Gueye DG de l'ANAM Achille jàpp na ci liggéey bi lu am solo le maire Albé Ndoye nekk fii waaye jàpp na ci Pape Ndiambé sànq jël na parole dégg nañu li mu wax au nom de la jeunesse le maire Magueye Sow jërëjëf président Amady Gagné Cissé na saar gis nañu sa contribution le maire Ndiagne Diop le mobilisateur Ngagne Diop yëngal gësam Yougou Di Diarra qui n'a pas pris la parole parce que Kadiali qui l'a pris au nom du socialiste waaye ñu ngi lay sant la gërëm ami collègue et son mouvement donc am na ñeneen ñu bari ñoo xamante ni mënoon nañu leen lim waaye monsieur le coordonnateur Ousmane Ndiaye il a beaucoup contribué li am solo nag léegi mooy il faut transformer les parrains en électeurs le 25 février 2024 ñu bari nag dañuy wax le 24 février c'est pas le 24 février ah le 24 février c'est un samedi l'élection c'est le 25 février 2024 le 25 février 2024 les parrains que nous avons actuellement il faut qu'on les transforme en électeurs les transformer en électeurs pour élire notre candidat, le Premier ministre Amadou Ba, le président Macky Sall a pris le temps, le soin de bien choisir. Amadou Ba a le profil pour être le bon Amadou Ba a le profil pour être élu au soir du 25 février 2024 au premier tour, cinquième président de la République du Sénégal. Donc loolu moom la ñuy ñaan waaye dañ koy ñaan waaye dañ ci mobiliser wu aussi pour qu'au soir du 25 février 2024 on est non pas la continuité damay dégg foofu aussi nit ñi ji juum waxuñu loolu de dañ ni pour qu'on ait le changement dans la continuité le changement dans la continuité le changement dans la continuité parce que kañ Amadou Ba su remplacer président Macky Sall foofu du changement de personnel politique changement de président changement de dirigeant, mais dans la continuité, parce que ce sera la continuité du PSE, ce sera la continuité des politiques publiques du président Macky Sall, à qui nous rendons aussi un vibrant hommage. Donc, maa ngi sant tamit di gërëm yeneen responsable yi ma fàtte woon Abou Diop du Nord abu Diop de Dar Rahman ñu ngi lay sant la gërëm monsieur le ministre maa ngi lay santaat bu baax di la gërëm pour votre patience votre persévérance mais aussi votre humilité jërëjëf Abdoulaye Diouf Sarr jërëjëf aussi. pour le compte de la ville de Rufisque mais aussi pour le compte d'autres communes du département notamment Bambilor et Bargny mais aussi pour le compte des autres départements de la région de Dakar et pour une bonne partie de la région de Saint-Louis un nombre important de parrains qui s'élève à Monsieur le ministre, chers camarades, nous vous Vous savez tout l'estime et la considération que j'ai pour parce que vous êtes un ami et un frère. Vous avez évoqué dans votre message un élément important, vous avez parlé d'unité, Pour qui vous connaît, cela consiste pour vous à insister sur une conviction profonde qui est la vôtre, unité et solidarité. J'aimerais effectivement, pour finir, lancer message. J'aurais bien aimé développer davantage le compte de Rufus et de la ville de Rufus et du département venez de la région de Dakar, mais vous comprenez que dans chaque salle de notre siège, il y a actuellement une délégation qui m'attend pour euh, donner ses parrainages. Mais j'aimerais finir simplement pour wax ñaari baatu wolof. da ngeen may baal sax léegi moo ne moom laa fi gis mooy wéeru fi nga war a wéeru jafandu fi nga war a jafandu wéeru ak jafandu benn pour mën a dëgmal fa nga jëm dëgmal bu wóor loolu moo nekk ci cinquante huit mille huit cent Avec euh, ce dépôt, Rufisque a largement dépassé l'objectif du référendum. maa ngi lay remercier di la féliciter. Je au président Macky et je rendrai au candidat. Et vous avez dit quelque chose d'extrêmement important. Li Macky Sall liggéey si réew mi saxaar moo li Macky Sall liggéey si réew yi ëpp na ñuy jox ñuy jàng yor ñu war a continuer am réew duñ ko jox kuy jàng yor dañ koy jox ku mën a yor bon nag monsieur le maire merci merci merci ci sa délégation mais ànd nga fekk ñoo xamante ñoom ñëpp samay mbir lañ sama nit lu bopp sama xol mais temps bi mayuma ma lim leen pour nekk la nga sëx ak man parce que occasion yu mel nii rek day laaj lu noonu mais maa ngi jéggalu war naa jël le directeur général du CCS léegi war a jël le directeur général léegi war a jël cinq Thank you.